fekkee euh, euh, euh, jàppandi na Mamadou samura mun a ko certainement ngi euh, bëgg jël ay réaction ci yenn ci ay leaders yu nga xam ne ñoom ñoo nekk sur place ndax moom moo nekk ci buntu tribunal bu grande instance bu euh, euh, Tambacounda bëri na ci ay autorités yu nga xam ne ñu ngi fa Pape Djibril faal gis nañ fa Assane Diouf Barthélémy Diaz gis nañu Thierno Alassane Sall ah, abdu Mbow moom it gis nañu ko Mamadou Lamine Massali également mu ngi ci tribunal ba foofu bu fekkee jàppandi na voilà le ministre euh, Sidiki Kaba. en euh, échangeant avec lui ministre ñu teewlu ko j'ai trouvé que c'est un homme qui est décidé et qui est prêt à venir défendre sa liberté devant le tribunal. Nous lui avons assuré de notre soutien et nous estimons que euh, doit recouvrer sa liberté. Il doit pouvoir participer en tant qu'opposant à la compétition électorale qu'il y a. Et les conditions de détention sont des conditions qui sont difficile, alors euh, dégradante, puisqu'il est dans une cellule avec plus de 40 personnes. Cela n'était pas quelque chose qui devait lui être imposé. Et nous pensons que l'injustice qu'il a subie, que cette injustice-là, la justice va la réparer aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas parlé de cela. Ce qui est important, c'est qu'il y a un homme qui est aujourd'hui euh, arrêté parce qu'il a voulu commettre un acte de solidarité. Et il a entendu et il a vu, nous avons vu, les populations de Bakel sont dans une situation de détresse morale et matérielle. Tout le Sénégal, dans tout le Sénégal, il y a eu un élan de solidarité. C'est dans ce cadre, moi-même, j'avais lancé un appel pour que l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora, et particulièrement les autorités étatiques, pour prendre les mesures idoines et urgentes pour apporter le secours pour les populations. Parce que nous avons été alertés par ces populations qui nous ont dit qu'il risque de famine risque d'avoir lieu. Un risque de famine. Parce que pourquoi Les champs sont sous les eaux et les greniers sont vides. Bougan, c'est dans ce contexte qu'il a voulu se rendre et il a été arrêté. Donc c'est un acte, comme délit de solidarité. Alors dans ce cadre-là, qu'il lui reprochait. est Le problème le plus important, je suis ici à Tambacounda devant le tribunal pour venir apporter ma contribution surtout mon soutien à une personne qui a maille à partir avec la justice. Cela met mal la démocratie sénégalaise. Il n'a pas besoin, dans des contextes que nous faisons pendant de longues années, des élections. Nous devons laisser chaque citoyen pouvoir s'exprimer et laisser le peuple trancher, dont le verdict va s'imposer à chacun de nous. Et il faudrait, là je le dis aussi, lancer un appel, c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de tous les candidats qui doivent pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire national sans être inquiétés, agressés ou tout simplement menacés par des forces. Je m'adresse euh, aussi, à l'opposition, que chacun prenne conscience que nous pouvons euh, défendre nos idées,

ñoo ko déggandoo donc euh, kii mooy ancien pem di maître Sidiki Kaba mooy ñëw jàppale kii di bu Bougane Gueye Dany nekk actuellement au tribunal li mu wax daal lenn la li Abdou Mbow wax lenn la li Thierno Bocoum wax lenn la ñëpp lu ñu wax lenn la mooy Bougane Gueye Dany n'a pas place en prison dañ ko war a bàyyi mu battre campagne comme yenn candidat yëpp et aussi ex-PM Sidiki Kaba il a lancé un appel à euh, aux autorités étatiques mooy nguur gi nañu fexe ñu sàmm kaaraange opposition bi comme ñu nekk aussi ci pouvoir bi pour le moment loolu moo fi am euh, au niveau du tribunal grande instance de Tambacounda. jaajëf Mamadou samora dañu koy jël en repérage rek lu fa am foofu rek ñu jël ko en direct di fàttali ñu kon euh, ñu ñu ñu ñuy. voilà ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy euh, déglu ci 89 di leen fàttali ne kon dara du leen jump gaa ñi ñu ngi ba tey ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, procès bi avocat yi ñoo ngi layoo dañ ko jotoon suspendre cinq minutes jëlaat nañu li nga xam ne moom mooy procès bi ñu ngi ba tey di waxtaana dara du leen di dinañ ci dikkaat benn par benn nga nekkoon fa am solo ci tandem tandem bi Jomaay ak Sonko saa bu Jomaay waxee Sonko génne wala am ñeneen ñu génne ngir man cee daal ñu jël Aziz Sow ah euh, moom it mi ngi foofu ci Tambacounda El Hadji Abdoul Aziz Sow Dabakh. Mbaye Ndiaye maa ngi lay fay. alors lan lañ mën a jàppagum comme te yaa ngi doon suivre li nga xam ne moom mooy procès bi. jàpp leen ni ba procès bi euh, di door kii di maître Ladiba di avocat wu Bougane Gueye yëkkati na rek ay euh, exception de nullité bokk na ci mu ne li nga xamante ne mooy àq ak yelleefu moom euh, Bougane dañu ko salfaañe loolee kon wute naag lool li nga xamante ni mooy règlement 5 bu UEMOA mu ko bëggee nga xamante ni ba ñuy interpeller nit ki rek dafa war a taxaw ak i ay ñi xam ne ñoo koy layool des avocats am loolee kon amul tax kon ba ñu sàkk woon ñi nga xamante ni moo jëm ci PV yi ñu niilal ko ni ki noonu lépp li nga xamante ni moo jëm ci wàllu arrestation ñu niinal ko ñu bàyyi ko euh, moom mu dem waaye gannaaw gi nag boobulee lay kii di procureur bi àndu ci da ko rejeté tax kon ba ñu tàmbali woon débat d'audience yi mu nekk laaj ak tontu diggante juge bi ak it kii di Bougane Gueye Dany li mu ko njëkk a laaj mooy lu ñu lay toppee nee na ko outrage la nee na ko rébellion la nee na bañu ko nee na taxaw dafa bañ beneen bi ne bañu ko nee na taxaw waaw taxaw na muy contradiction yoo xamante ne soulevé ko ci kanamu Anoune Fall di juge bi nga xamante ne moo ko yor bokk na ci itam yeneen ni question sañ ko posé rek da leen di delloowaat ci euh, juge wala sax euh, ci euh, audition yi nga xamante nii amoon na ko yemu fa mu jox leen ay clé USB yi nga xamante ni bépp vidéo bu amoon ci mbir ma rek ay juge yi wala sax Euh, ñii di journalistes yi amaloon ko techniciens yi amaloon ko boole na ko euh, ci rek euh, dossier bi pour mbir mi gën a leer loole kon ba tey rek ci juge bi ci loolee sax la jàppante bu ndaw amoon bokk moom it dina taxaw devant le juge ndax témoin la ñi fii ñëw itam bokk na ci Pape Djibril Fall mu ngi fii Barthélémy Diaz mu ngi fii ki nga xamante mooy Thierno Alassane Sall mu ngi fii ki nga xamante mooy Mamadou Massali mu ngi fii gis ngeen ko yàggul wala sax dégg ngeen ko ak bi di Mamadou Samoura ak kii di fi nekkoon juge di fi nekkoon ministre di maître Sidiki Kaba moom it ñëw na jàppale ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany euh, fii euh, ci tribunal bu Ndakaaru jàppalee ni bu d'audience euh, débat d'audience yi jeexee xam ngeen ni kon dina am lu tollook lu ñu naan lii di plaidoirie ñoom ñu fi toogal état bi dina ñu wax bu ñu paree itam kii di programme yéen a seen i kër wala ñi nekk ci oto yi di ñu teewlu ci 89 point 7 waa diaspora bi ci Sen TV l'officiel wala ñu nekk seen i bureau ndax procès bi lu ñëpp doon xaar la tey jii la 30 ñu war ko dund en direct en tout cas gis nañ invité kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa teew ni ko Simon Pierre fay waxee bokk ñoo Bougane daal Dany eh, ci langue politique mais dañu di ay sénégalais yu gis Bougane Gueye Dany engagement bi mu am eh, jàppale gi nga xam ne moom la doon def ba tey li ko ci fekk fekk ko si loolu moo tax eh, tey jii ñoom ñëpp ñu dem dikkee ko renfort ñu jàpp ne ñenn ñi dañ bëgg a maanaam éliminer benn saa su ne dafay mel ni ku tàbbi si noppi ku tëx. ma ñëwaat rek rapidement ci sonti le premier ministre Sidiki Kaba. Sidiki Kaba moom dañuy na li ñu ko xam mooy xeexal ak yelleef doomu casquette droit de l'hommiste waaw droit de boobu noonu mais mu am lu am solo wax mooy délit de solidarité hmm. kooku moom war nañ ko adopté tey venant de le grand le grand avocat kon daal fii daal léegi ndimbale daal ndimbale nit délit la léegi délit la daal <laughs> ah, mais <laughs> c'est bien <laughs> ok léegi ah, waaw waaw comme affaire yi moom léegi Olof Ndiaye da nee na jàmm du doy waaw jàmm du doy waaw hmm. non xam nga fi fi nga doon àddoo léegi nii euh, confusion bi ñu dab nii boobu ba tey ñun ñu ngi àddu rek boobu ba tey parce que nature fonction président de la république dafay xam nga olof Ndiaye ko ci Barma Fall moo ko doon wax mu ne buur du mbokk bu ñëw buur du mbokk du question buur dafa soxor mais buur boo la jël décision war a xool ne parti politique bi laa bokk kii mooy sama xarit. comme ni ko Bassirou Diomaye Faye waxee keroog tey à partir du moment où il est de l' état le chef de l' état le président de la république de tous les sénégalais. moom mooy sénégalais bi gën a informé. donc moom li tax mu def nécessité sax waxaat recadré peut-être def na constat boobu ne xëy na tey dafa am ñaari Sénégal l' émergence d'un état pastefien comme ni ko Alioune Tine waxee maam état boo xam ne moom pour ku bokk pastef la. Mhm. am na ministre sax bu dem bay junj lu mel ni ku bëgg liggéey ci réew mi foog nga am carte pastef. Mhm. du noonu. Mhm. gis nañu teel a marañax bi ñu nekkee ci dëkk bi kenn waxu leen dara kenn waxu leen dara. donc loolu mooy mandarga dictature mooy mandarga état pastefien mooy mandarga parti état mooy mandarga sax velléité d'instaurer un parti unique. loolu mooy ñu koy xalaat dañoo tardé ci démocratie et on parce que mosuñu ba 2014 bokk ci benn xeex boo xam ne bi ça s'est mené au nom de la démocratie sénégalaise. léegi euh, beneen côté bi ci côté institutionnel bi la gën a grave Mbaye parce que damay laaj léegi ba président Bassirou Diomaye fay bu doon du Ousmane Sonko mooy premier ministre ñu jël Mame Mbaye Niang nekk premier ministre wala Thierno Diop est-ce que dina nangu muy wax li Ousmane Sonko di wax wala di ko jëfee damay poser question boobu rek ñu xam ne dafay yàqal réew mi bu waxee ba pare heure bu waxee ba pare yàqal réew mi lu bëree bëri bëri wax ji mu wax bëriki démb ne affaire dafa doon tappale ma jël exemple boobu li fi xew yëpp ci ay doomu aadama faatu man góoma ko woon xam nga kañ laa lu tax góoma ko fii jafe Ousmane Sonko yu bëri daawuñ tee du ñuy seetlu ay waxam nit ñi buy wax ñu ngi ñu ci ëfful rek na Macky dem rek